asalaamaaleykum man Abdoul Aziz Dabakh Racky Mbaye ñaan ko Moulay maa ñëwoon tey TMTV di waxtaan ak yéen tey. ndar laa juddoo yeggale sama njàng Thiès waaw sama yaay moo jógee ndar dem sëy day dem sëy Thiès ma màgg fa jàng bu màgg ba tool fi ma war a toll ay CM2 yooyu xam nga xale rek ak léejëm waaw sama papa def na lu ne ngir ma réussir jaar na prétoire militaire jaar ci yu mel noonu yooyu yëpp njàng mi doxul mu dugal ma ci raay bi chemin de fer sama papa cheminot la mu dugal ma ci raay bi chemin de fer ma liggéey ci ay weer di jox sama yaay ma dem ba liggéeyee Ndakaaru gis marchand ambulant yi ni ñuy def ci Sandaga ma dem ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ma xam ne li may am ci ambulance bi moo tax moo tax day raay ba samay mbokk njaareem njaareem nañu woon waa njaareem xam ambulance rek nañu xam ma ànd ak ñoom ñu dugal ma ci ambulance bi ay ñoom Fallou Dieng yëpp daa yóbbu ñoom ñoom ñoo ñoo ay xale noonu ci Sandaga waaw may jaay di jaay di jaay ba sama mbokk yi màgg dugal ma ci bato yi. waaw ma nekk ci bato yi di yëngutul bato la joolaa bi dignité tey liggéey naa ci ay ati at ci laa takkee samay soxna ci laa defee lépp ba suñ joon yàlla tey jii ma tàggoog samay soxna nekk ci ay torop torop bu ma jógee foofu ma ñëw fii di taxawaal ci jàmm gën gii aw ma dara lu ma def di fanaan ci mbedd yi pharmacie bu ne fanaan naa fa taatu ba ngi marché bi fu ne fanaan naa fa bu subaa ma yeewu dénkaane sama benn simis si benn kër dugg dëkk bi mu dee ba ñëw fanaan ci taabal yi loolu lépp jaar naa ko biir jàmm gën jommi naa lu ne def naa ko dama di góor rek da kon yàqu naa bu yàgg waaye jigéen mënu loolu góor du ma doon nag moo tax loolu luy law ba tey ba tey maa ngi nii li ma ci jëlee sax xamu ba feebar bi mu ci jëlee xamu lu mu doon booba tey maa ngi nii ci coow sama yaay laa dëkkal fii ci jàmm gën man mu laay mi ngeen di xeeb man maa doon taawu kër gi amul lu ma defal ci kër gi bi muy liggéey li watal la joolaa bii ak yéen ba toñ léegi boo dee ba nekk ay trop trop boo liggéeyee tul boo nekkee kër gi xam nga la fa xew lu fa xew doo ko dégg wala ba la koy dégg ñëpp dégg ko bare jaar-jaar nag mooy loolu jaar-jaar metti na trop trop trop ba léegi tey maa ngi nii ba ñëwee fii nag ci émission jaar-jaar bi mën naa fi wax sama lii may wax nii jaarale ko ci waa TMP TV maa ngi nii nag mën a mulaay mën a mulaay da baax bu ngeen dégg ci jàmm gën. teral naa bu teral baa dool teral samay maas man amul ku ma amul ku ma teralul samay mbokk waaw waaye léegi dafa toll bi nga xam ne jamono ji léegi moom say booy lim say noonu moom. sey war nga jiitu jiitu say mbokk lu mooy jaar jaar waaw may na ma ñetti bant ma ni ah, man maa ko def nag yoruma ba noppi saa ma ñëwee di ko xeeñ sàngara te mu toog muñ ko mëntu koo muñ mu ñaan baat dem dem ñibbi lu ma baat may may ah ma may ko baatam parce que xam naa dama koy solol te yoruma lu ko yoree waaw mu ñaan ma baat moom moo ñaan baat waaye ma bàyyi ki mu dem parce que man xam naa ne yoruma lu ma ko jàppalee te ay moroom yëpp yor def ay natt yeeg yu mel noonu yoruma ko ma bàyyi ko mu dem. naan gi moom ca xalal la ca bato yi la moo tax. waaw moom moom may bàyyi ba tey amatuma doole boobu nag may naan ba ma doon naan ba léegi ba tawat ni ba ko. boo koy def rek day ne doo xam tànk jëmoo mag. boo koy def de neex lool waaw ngay boobu ndax boobu xale ngay doon ngay am dara mais boo jëmee mag lay feeñ ba ngay gis démb la doon wax waaye léegi nii tey man gis gis naa ko waaw sàngara yàqul kenn boo demoon tey biir Ndakaaru gi ay kilifa rek kay naan waaw mais dafa am ni ñu koy naanee sàngara gi boroom xaalis la moo ko moom ku amul bokkoo ca ndax bu njëkk buur yee ko daan naan bu njëkk baadaloo dugg sàngara buur rek léegi la ci baadaloo dugg moo tax metti borom xaalis mooy nan sangara boo yoree xaalis sangara du la gaañ waaye boo yorul mooy lu dalay gaañ buñ lu koy wax ne lu gëm dañu nga yàq say yàq xoola man fi mu màggat naa xat demul fen waaw sangara baaxul lu neex na waxul neex na nag ci bi nga koy def bu ñuy xale waaye baaxul xale yi daal su ma sañoon duñ topp njàng mi njàng yi la mën nga jàng di naan am nañu jàng di naan jàng yi liggéey mais naan borom xaalis ko yow bokk ma wax la ko du la gaañ nga wàcc lekk sangu ba set lekk ba suur yor sa oto bu rafet dooleel naan noonu la naan neexee ah di di ñaan yàlla xale yi xale yi réussir rek liggéey yëpp réussir waaw showbiz bi ñu ci nekk ñëpp réussir man daal loolu laa ñaanal ñëpp daal daraja yàlla. nguur naam koy tàddee duniya.